ndox dama koy wax toujours du ma noppi di ko wax ndax problème la nañ ci jëg matuwaay yi ñu war a jël nañ wut ay defukaayu ndox ci denc ndox di ñaan ofoor ñu taxawuñu indi ñu ay citerne may ñu ndox ca bañ cee wékk nag lu diis ndax bu fekkente ne màggal moom toujours programme d'urgence lay doon programme d'urgence nag defe naa euh, war naa mën a teel a jàppandi ndax la ciy dem xam nañ ko ci ginnaaw doo ko ca weesu bu teelee egg fa mu jëmit dañ ko mën a jariñoo xam nañ koy téye waaye bu fekkee da nga soxla benn citerne ndox ñu la da ngay joxe gasoil daanaka moo jënd yem ci ñenn ñi. ndax màggal lañ toll ci charge yu bari na bariwaan moo xam ne yéema ne ñu ñaan foofu bu ñëwee na lépp gratuit lu ci munta gratuit ku bëgg lu ëpp benn seetaan nga soog ko laaj carburant waaye defe naa benn seetaan ndox nga jox ko nit mu denc ko pour màggal pour waajale ko màggal war na mën a gratuit bu euh, le préfet ñun li ñuy wax rek mooy ni ñu ko baaxoo wax waxe e, soññee ak soññiku sunu bopp ñun ñu soññ ñu soññ sunu bopp ñun waa Touba wala ñun sax mur yi ma xam ne dañuy màggal si wala képp ku xam da nga bëgg a màggal si nga xam ne màggal gi am na lu mu laaj kenn ku ci ne la nga ca man ci say matuwaay nga jëlal ko sa bopp dana wooye falal ñëpp kenn ku ne la nga war a def euh, li répété waat rek ne am nañ gënaat nañoo am yaakaar gënaat nañoo am yaakaar ndax euh, ñii jiite réew mi tey xam nañ dayaay Tuuba ak dayaay màggal gi te defe naa ni occasion la pour ñu def une bonne entrée ci Touba ak ñuñ waa Touba ndax Touba yaatu na Touba yëmul ci dëkk bi rek dëkk bi benn périmètre la waaye yoon wi yaatu na fépp te amuñu lu gën a rëy màggal gi amuñu lu nu gën a ñor màggal gi loolu nag ñu ngi ñaan mu feeñ ci taxawaay yi kon monsieur le préfet ginnaaw bi ñu sante yàlla daal di santaat sëriñ bi ñu ngi leen di sant yéen ñëpp di ñaan yàlla yóbbu nu ci màggal gi ñu weesuwaat ko ak jàmm ci yàlla defal nu ci ndam ñun ñëpp ndam lu kawe suñu njort